un jour une actu un jour un chiffre ak Marcel Farba Maroun Marcel ma nuyuwaat la. fayaat la soxna naata. Marcel tey jilee kan bi la ñuy wax ñu ngi waxaat naan est-ce que duñ ko dàqaat tey li tax sax ñu bëgg cee taxaw mooy am na benn daje bu war a am diggante président bu Cameroun. di Paul Biya ak ki jiite CAF di Patrice Motsepe. exactement soxna naata ni nga ko waxee noonu la c'est un secret de polichinelle hein désormais tey donc ca mardi le Patrice Motsepe nekk fi président de la CAF euh, mooy nar euh, kii di euh, Paul président du Cameroun donc foofu ca Cameroun la ñuy nar a daje daje euh, day nar a ànd ak euh, kooku la di Patrice Motsepe day ànd ak euh, maître Augustin Senghor nekk vice-président de la Confédération africaine de football mais nekk aussi président de la Fédération sénégalaise de football. alors ñu delsi ci ginnaaw xool depuis dimanche lan moo jot am eh il y a eu une réunion d'urgence du comité exécutif de la CAF dimanche 16 décembre à Doha la woon ci réewu Qatar euh, ñu gis na ne y une présence euh, incongrue euh, de la part de Gianni Infantino moom bokkoon na ci moom mi di président FIFA ñu gis na ne ñu ci ëpp ñoom dañoo contre le fait ñu bëgg repousser mhm. CAN boobu noonu waaye ñetti réew ñoom dañoo nangu ne war nañ mën a en tout cas reporter boobu le CAN ñu di waa Égypte waa Maroc ak waa Burkina Faso waaye kii di Samuel Eto'o gis nañ ko sànq moom mhm. nee ñett nee na déedéet mukk dootu du fi amee dañuy organiser kan ba euh, foofa ca Cameroun. Gianni mhm. Infantino moom mu ne jiite euh, FIFA. ñu ngi koy xaar tey ci Cameroun ban njeexital la mën a am ci coow li. c'est ça donc Gianni euh, Infantino ñu ngi ko xaar tey ca ca réewu a à Yaoundé et aux alentours moom daal à l'issue d'une rencontre qu'il va avoir ak ay autorités foofu ci ci wàllu football ak yeneen. Mhm. dinañ nar a xam si waaw wala déet kan bi dinañ ko reporter donc fu jëm ci wàllu euh, Gianni Infantino. Mhm. alors euh, ñu euh, xool un petit peu les raisons de ce report là les raisons entre guillemets hein, parce que am na ñoo xamante ne teguwul yoon au fond mais bon mhm. ñoom ñoo ko évoqué ñoom daal dañ daal di nekk incertitude dafa am ci lu jëm ci infrastructure camerounaise yi waaye tamit dégradation situation sanitaire bi nga xamante ne fu mu nekk ni benn variant bu tudd Omicron mu ngi lembe ngi adduna bi donc ñuy ragal rek mu am ay risque de quarantaine lors de de retour joueurs yooyu bu ñu delloo Europe Euh, ñu daal di leen mettre en quarantaine euh, waaye tamit am na euh, ay réticence maanaam ay club européen yoo xamante ni bëgguñu bàyyi seen joueur ñu dem rejoindre seen i sélection waaye tamit mu am beneen date FIFA boo xamante ni entre le 3 et le 12 février lay nar am mu di coupe du monde des clubs mu nar a mel ni que dañuy nar a ñoom ñaar télescopé wu dafay nar a en tout cas coïncider ñoom ñaar seen i seen ndax on rappelle que coupe d'Afrique bi c'est du 9 janvier au 6 février donc diggante nar a dañuy nar en quelque voilà donc euh, on le disait l'association des clubs européens ñu gën leen xamee ci ECA ñoom euh, ñu taxaw ci club européen yooyu li am na mhm. ay coach euh, kaddu. Mhm. mu ñeel boobu tamit. exactement des coachs s'en mêlent noonu lañ ko tuddee kii di Jürgen Klopp nekk entraîneur allemand ba ci Liverpool moom daal keroog ba daal di gagné FC daal di ne la CAN c'est un petit tournoi en an en arrière, il s'est expliqué. Euh, voilà, <laughs> donc euh, Luciano Spalletti nekk moom coach du Napoli en Italie au sortir de la rencontre contre le Milan AC keroog dimanche loolu la daal di euh, enfin championnat Serie A en tout cas bu ni la qualifié Coupe d'Afrique bi il y a un monstre a invisible qui te prend tes joueurs euh, qui dit Antoine Comboiré moom nekk français ca FC Nantes moom dafa daal di nekk ay date FIFA lañ bëgg na est-ce

xam ne le début 2023 euh, waaye tamit mu am beneen ni manœuvre boo xamante ni FIFA da ko bëgg di euh, teg temps yi mooy benn Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans mm-hmm. boo xamante ni diggante juin ak juillet lañ koy nar a jouer waaye tamit euh, bu loolu weesoo ñu gën a modifier waat calendrier bi puisque dañu ne Coupe du monde des clubs tamit tous les deux ans lay nar a am mondial bi moom tamit tous les deux ans ñuy fàttali ne idée boobu noonu du mondial tous les deux ans dafa recevoir la le soutien de la Confédération africaine de football mun ñu daal di digal ñu daal di dig waa

ñu daal di ne daal dañuy retirer organisation Coupe d'Afrique des Nations boobule euh, waa Cameroun jox ko euh, Égypte fin janvier 2019 euh, ñu reporté waat encore Coupe d'Afrique boobu en juin juillet 2021 et puis en janvier 2020 Cameroun <clears throat> yoo xamante ne Cameroun da koy jànkonteel ci ci seen réew alors ñu gis na ne dafa am ñoo xamante ne daf

moom nag nga xamante ne depuis août 2019 euh, dañ ko daal di mettre sous tutelle euh, ñoom waa FIFA ñoom ñoo koy daal di def ki di Fatma Samoura nekk suñu euh, concitoyenne sénégalaise moom dañ ko daal di en qualité de délégué général de la FIFA auprès de la CAF le 1er février 2020 ki di Infantino daal di njëkk junju xel boobu noonu waa waa pour ñu organiser Coupe d'Afrique des Nations boobu tous les quatre ans donc ñu mu proposer waale tamit ñu di fay euh, weer bu ne loola leen proposé tamit impliqué un dugal un milliard d'euros pour construction stade dans les 54 pays africains donc des stades de haut standing euh, après cela ñu gis na ne Amad Amad a été démis de ses mi nekkoon fi président de la Confédération africaine de football le 23 novembre 2020 entre les deux hommes ça n'allait ci ah euh, keroog ci comité euh, en tout cas ci COMEX ba rencontre bu euh, tout cas looloo fexe woon ba ñu daje woon c'était pour élire le futur président

d'empêcher les joueurs africains de participer à la CAN kii euh, di Arsène Wenger nekk conseiller FIFA nekkoon fi Arsenal nee na il faut respecter les compétitions africaines il faut que les clubs relâchent leurs joueurs ndaxte ci règlement bi la bokk foog ñu bàyyi joueurs yi euh, euh, ne excuse la en fait hein, finalement donc Joseph Antoine Bell ñu jeexalee ci ay kàdduwam moom mi fi international camerounais nekkoon fi gardien de but nee na décision bi amul benn fekkee ne dañ koy nar a appliquer euh, ndaxte euh, nee na daal que européens yi nañu bàyyi di ñu nettali di ñu raconter ay histoire nee na virus bi boobu di Omicron nekk pourtant taxul championnat de France taxawaluñ ko euh, anglais football nen keroog et puis yàggul et puis ils joueront aujourd'hui ils joueront demain naturellement on doit aussi laisser le continent africain dans cette belle fête du football africain. C'est ça, ils le moyen de vivre avec le de jouer au foot avec daanaka muy respect dañoo war a respecter waa Afrique c'est ça. je pense que permettez-moi de m'exprimer en français quoi parce que ces Européens franchement euh, manquent totalement de respect et de considération aux Africains. L'Europe a son euro, l'Afrique a sa Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que si les joueurs européens sont libérés pour aller participer à leur compétition, le débat ne doit même pas se poser en Afrique parce qu'il n'y a pas une compétition plus prestigieuse que la CAN pour nous autres Africains. Uh -huh. Si aujourd'hui on parle de vagues, de delta, de omicron ou bien de, de variants britanniques, c'est l'Afrique qui doit avoir peur de l'Europe et non le contraire. Uh -huh. C'est nous qui devons mettre en quarantaine ces Européens. Pourquoi Au nom de quoi L'Europe les Européens, les clubs européens doivent dire aux Africains ne partez pas à votre compétition qui ne vaut absolument rien. C'est un manque total de respect et de considération. Mmh. Et je pense que ce sont nos joueurs, nos dirigeants et nous autres journalistes qui devons faire face à ces Européens qui nous manquent de respect. Mmh. Mmh. Je me rappelle de cette époque où on parlait des Sénégalais de France. Uh-huh. les dirigeants sénégalais étaient partis à Metz pour demander la permission pour que Jules François Bocandé puisse venir disputer les éliminatoires. Les dirigeants de l'époque avaient dit niet. Feu Jules Bocandé leur a dit allez-y, je viendrai jouer pour mon pays. Il a trouvé une superficie parce qu'il a tout fait pour avoir un carton rouge et venir jouer pour le Sénégal. <laughs> un journaliste français à l'époque où Jules Bocandé était meilleur buteur du championnat de en 85 lui a dit si vous étiez français vous peut-être l'attaquant de l'équipe de France la réplique de Jules Bocandé a été très la France a son Michel Platini l'Argentine le Sénégal sont Jules François Bocandé. merci Sénégalais est fier de l'être. Euh, jërëjëf Africains levez-vous. également joueurs africains mm. prenez vos responsabilités. Mm. car pour nous la CAN vaut mieux que l'euro Merci beaucoup Aladji Malick euh, Chérif Malick a parlé pour toi aussi n'est-ce pas. oui Malick a parlé. fenn rek laa ci non lenn rek laa ci bëgg a yokk mooy mm. ñun ñoo war a respecter suñu bopp. effectivement pour man on doit rien dire aux Européens africains ji boppam ñoo war a respecter seen bopp nos dirigeants nos chefs d'État respecter seen bopp pour ñu respecter parce que uude ni mu la gisee la lay. ëwalee à mon avis le problème société à ce niveau des fois sax européens ku leen wax dara tooñ leen parce que ñoom bëgg nañ seen continent bëgg nañ seen bopp ñun ñoo bëgg suñu bopp bu ñu bëggoon suñu bopp manko juboo parce que ni ñu définir indépendance comme boo xoolee way Youssou Ndour Omar Pène ba indépendance mooy moom nga moom sa bopp di dem ak sa xel wéeg sa xalaat bu dee loolu Afrique moom amagul indépendance parce que lépp dañoo jàpp ni bitim réew loolu jógee à mon avis ci wàllu Covid bi wane na ni ñun ñoo gën a résilient Europe ñoom la comme ni ko Malick waxee ñoom la Covid bi di faat voilà ah. Covid bi hmm. ni ko Samuel Eto'o parce que je pense que c'est un leader qu'il faudra

que maa ngi xol lay waxee merci beaucoup Marcel. merci euh, léegi dañuy jàll ci beneen rubrique muy de quoi est-il le nom.